julli ci sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi dellusiwaat nag di nuyu ñëpp di ziar maa ngi doxantoo ba ci hôpitaux yi di ziar malaat yi di ñaan yàlla yàlla yëkkati leen ñu bañ faa delluwaat di ñaanal ñëpp ñi nga xam ni dañoo wàcc liggéey yàlla leen yàlla yërëm te leen àjjana maa ngi ñaanal waa prison bi képp ko fa ne rek yal na la fa yàlla génne te bu la fa yàlla génne yàlla doon sa sangat ba dootoo fa delloo maa ngi nuyu di nuyu diaspora bi di nuyu waa Salam maa ngi di nuyu waa Salam Vision di leen ñaanal gudd fan ak wér mais tey jii maa ñëw di nuyoowaat ni ma daan nuyoo di lancé waat message boo xam ni comme ni ma ko daan commencé noonu laa koy commencé di wax euh, waa diaspora bi di wax waa Sénégal ma leen di wax ni leen feebaru corona bi ci dëkk bi moytu leen jël leen seen précaution de leen takk masque de leen euh, utiliser gel wala ngeen di utiliser ay saabu te ngeen moytu ndaje yi moytu mbooloo yi parce que feebar baa ngi fi jógu fi gaa wàññeeku na wàññeeku na nag wax dëgg yàlla macha allah bu baax a baax ndaxte dese yi mu daan am mu daan baree noonu dese yi wàññeeku na loolu nag. ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax a baax di ko sante aussi notre ministre Abdoulaye Diouf Sarr di ko wax ne mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci santé bi ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di ko di ko wax ne ko fépp fu mu bëgg a egg ci santé bi yàlla na ko yàlla yombalal tey nag dama ñëwoon tey ne rek naa ñu nuyu leen pour am benn message yu ma leen lancé muy dafa am ay naar yoo xam ni dañ fi ñëw Sénégal pour di faj ay bët dañuy def opération gratuite bu cataracte opération gratuite bi nag yëmbal lañ koy defee ci hôpital bu bees bi nekk yëmbal hôpital yëmbal bi dispensaire bi hôpital lañ koy amee dispensaire yëmbal la moo nekk ci diggante marine bi marine la nekk booy moom moo ci ak CDEPS bi il paraît que moo ci topp d'après information yi ma am loolu lañ ma expliqué léegi nag woote naa fa ci suba am na ku ma jot expliqué na ma bu leer a leer léegi nag dama ñëw pour lancer message pour képp koo xam ne am nga problème bu bët ak ko boo am problème bu nekk demal foofu consultation bi mi ngi commencé le 3 le 3 juin bii di ñu ñëw lay commencé ba le 10 ba le 9. may ñaan na comme si àdduna bi dafa metti te dem di def opération dafa metti te xaalis amul comme ñoo ñoom ñëw nañu suñu réew pour yombalal ñu opération bi dama bëgg képp koo xam ne yaa ngi may di ma seetaan ci YouTube bi nga dem ci yëmbal le 3 lay commencé bis bu nekk dina jël ñaar téeméeri nit bis bu nekk ba le 9 le 3 ba le 9 bis bu nekk dina jël ñaar téeméeri nit may wax sama mbokk yi ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi te yàlla am natt fu mu leen teg ci seen bët yi nañu dem bu ñu demee ñoom nee nañ luñ ci mën ci yow dinañ la ko defal gratuitement doo fay dara kon yombalal nañu yëf yi ku bëgg nag ci yëf yi na la fa 6 heures du matin fekk bu la fa 6 heures du matin fekkee yàlla mën na laa def. bis bu ne ñu jël ñaar téeméer ay junni junni nit la jël bu la fa 6 heures du fekkee nga ñëw rang yàlla mën na la suturaal ba nga bokk ci ñaar téeméer nit yi par bis parce que ñaar téeméer nit par bis du lu yomb ngeen ànd nag ak yar ànd leen ak tekkin ànd leen ak sutura ku ci dem na laaj sa morom kan moo mujje nga ran topp ci moom parce que ñoom bu ñu déplacé woo ñëw ba suñu réew pour dimbali c'est parce que xam nañ ni li nekk ci Sénégal metti na yéen nag yéen yéen a mën a jàppale seen bopp comme dañoo ñëw di leen jàppale da nga yéen mën a jàppale seen bopp te li ñuy wax ni euh, euh, am na yu bari ndimbal na ca fekk loxol borom yéen bu fekkee ñëw ngeen ñoom ñu ñëw fekk leen ngeen toog correctement def seen rang bañ a xëccoo bañ a wax kii moo mujj ngeen naa birante seen biir ki jiitu boo xamee ni mag la sax te ñëw na yow yaa ko ne fekki xale mu ñëw ni la man ma damay ram soo ko jiitoo ngir yàlla may ko place sax mu toog yow nga dem toog fële te xam ne xale day jàppale mag te mag ñi nañu xam ni xale yi seeni doom lañ seeni sët lañu seeni jarbaat lañu ñu teg leen place coow bañ am tey daal dama ñëw ci sama émission Salam Santé pour waxtaan ak ci loolu sama mbokk jullit yi sama mbokk chrétien yi bàyyi ma kenn bàyyi ma kenn consultation bi yëmbal la incha allah du 3 au maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan ñëpp di wax ni tamit maa ngi tëjewaat ci affaire corona bi encore une fois moytu leen moytu leen ndaxte fagal moo gën fay maa ngi remercier nag waa Salam Vision bu baax a di di ko jiital ci suñu DG. mi nga xam ne ñoom ñoo ma yaatal ba ma mën a toog fii di jàkkaarloo ak yéen di waxtaan ak yéen maa ngi remercier aussi Samba bi nga xam ni moom moo ne ci ginnaaw di def liggéey bu am solo bi te kenn gisu ko maa ngi koy remercier di ko ñaanal jàmm di nuyu suñu dee doyen Sakho di nuyu ñëpp képp ku ne Salam Vision rek maa ngi lay leen di wax ni leen rendez-vous bi le 3 la yëmbal incha allah man la woon seen yaay seen xarit. Khady Diouf maa doon def émission Salam Santé maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox rendez-vous àllarba incha allah ci waxtu wi nekk leen ci jàmm jërë ngeen jëf. Bienvenue sur Salam Vision.